28 of May 2023 Champion Sound Promotion dajale ñu di jaajëfal kooku nga xamante ne mooy Champion Sound Promotion diggante leket bu baara former king of the arène former national team captain ak kooku nga xamante ne moom mooy am Yaya Jammeh bu Gambia Police Force ref bi laaj na ndax pare yéen ah ref génn na seen diggante lum yuuxu na Yaya Jammeh am na lu mu teg digganteem ak Leket Leket am na lu moo jàng Yaya Jammeh am na lu moo jàng Yaya Jammeh ak Leket Yaya Jammeh Leket lemu na raay si biir bi Yaya mu ngi leewatoo ak Leket Leket lemu waat na laa ilaha illallah leewatoo bi tey na ñoom ñaar ñu ngay leewatoo waaye Leket bu baara moom moo féete suñu left side Yaya Jammeh moo ñu féete right door amagul congo amagul mépp amagul ñoom ñaar kese Rafi mu ngi leen di wax ñu bëree leket mu ngi naj Yaya Jammeh door ay leket door na leket door na léegi door bu dal Yaya Jammeh ngi daw di laa ilaaha illallaah Yaya Jammeh door na leket daw na génn sàkku yi ñoom ñaar xeex nañ bagaar Yaya Jammeh oho oh Yaya Jammeh ak Leket bu Baara ndax Leket du am woonin laa ilaha illallah ñoom ñaar woonin amu fa dañoo bëre génn si biti yoo ñamante nañ ku si nekk nga sa morom li nga saf ku nekk tourné sa morom kuubu dal waaye ndax door dina jeexal làmb diggante Leket bu Baara Yaya Jammeh aa ah, ñu ngay damante baaram ñu ngay damante baaram ñoom ñaar wane nañ ne kenn ragalul sa morom diggante Leket bu Baara Yaya Jammeh ñoom ñaar laa ilaaha illallaah Leket door na Leket jàppante nañu jàppante Yaya Jammeh si Senghor la jàpp Leket laa ilaaha illallaah oh Yaya Jammeh dóor na Leket dóor na ñoom ñaar ñu ngay dóorante ñu ngay dóorante ñoom ñaar oh jàppante nañu laa ilaaha illallaah jàppante nañu génn nañ saako yi eh Leket bu Baara Yaya Jammeh mu ngi demande ndox pour Selmou. dafa mel ni suuf si daga dafa dugg si potu Yaya Jammeh mu ngi dimaan ndox pour selmu Leket bu Baara Yaya Jammeh Yaya Jammeh am na lu nekk ci bot bi saxaar na li nga xamante mooy mar protect bi ñu ngay damante baaram si ñaari loxo yëpp ah Leket door na Leket door na Yaya Jammeh door bu dal ci kanam bi Yaya Jammeh Yaya Jammeh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 moom may njàmbali Modou Lo Balla Gaye la may fàttalil ooy leket fi nga nekk sori na leket fi nga nekk sori na leket fi nga nekk sori na leket leket fi nga nekk sori na laa ilaaha illallah yaay jàmm ngi buur ci kaw leket leket fi nga nekk sori na leket fi nga nekk sori na waaye yaay jàmme liif su fi mbër mu sa yegg mbër mën nañu wax penalty la si mbër leket bu baara yaay jàmme oh diggante lekat ak yaay jàmme yaay jàmme daf ko tag yan ko doole bi tëdd si kawam rafalu yaate na ñoom ñaar seen diggante leket ak yaay ndeysaan rafale bi génn na seen diggante ñu ngay leewatoo ndeysaan ñu ngay leewatoo yaay jame dóoraat na jame dóoraat na waaye dóor yi yaakaar naa wàññiwul kenn flag yi Talib Ahmed Bensouda mu ngi toog di seetaan làmb ji dendoog Serigne Modou Faye Thiam njiitalu lamb ji di president of Gambia Wrestling Association Yaya Jammeh Yaya Jammeh sol na leket Yaya Jammeh la ilaha illallah fam ko yeggoon yeggaat na leket daw génn sàkku yi waaw leket am na woonin am na ñaari woonin léegi nag combat bi Leket war naa mën a ay Yaya Jammeh door na door mu daanu maa du fi am door mu daanu kor mu door laa ilaaha illallaah hey laa ñoom ñaar jàppoon nañu Leket taw na gànnaar saako Leket mbaa doo amaru woon wala dañ bëre génn. leket bu baara leket mu ngi triser combat bi leket mu ngi triser combat bi ndeysaan leket bu baara ak yaay jaame ndeysaan leket sol na yaay jaame waaye yaay jaame dafa mel ni jàpp na ngemb la jàpp leket bu baara jàppoon nañ yaakaar naa léegi dinañ bare jàppoo nañu yaakaar naa léegi nañ bëre Leket li nga bëgg a imposer mbaa dina dem Leket li nga bëgg a imposer si Yaya Jammeh mbaa dem Leket bu Baara ak Yaya Jammeh la ilaha illallah génnaat nañ oh. Leket bu Baara ak Yaya Jammeh Yaya Jammeh am na lu nekk ci bët yi Yaya am na lu nekk ci bët yi ñaar leket bu baara dafa mel ni moo ëpp lu muy cong ndeysaan leket bu baara Yaya Jammeh ndeysaan Leket ak Yaya Jammeh ñoom ñaar fosa fi jeex na fi jeex diggante Leket bu Baara ak Yaya Jammeh jox nañ Yaya Jammeh victoire bi lamb ji jeex na Yaya Jammeh Leket ci par nii la lamb ji demee ndeysaan Yaya Jammeh ak Leget bu Baara Champions and Promotion ñoo ñu dajale won fi on the 28 of May fii si Serekunda West Mini Stadium ñom ñaar beure nañ beure nañ ci fulla beure ci fayda beure ci jom digënde Yaya Jammeh ak Leget bu Baara Leget bu Baara champion la teel a dëgg mu ñalam ci li nga xamantene mom modi Lamine Gambia ki nga xamantene moy mooy ah, Yaya Jammeh tey jii bu dee mu ngi doon yotu xoyantane dina yomb pour mu jot ko kon luñ mëna wax tembe tembe tembe moy refal yi jox nañ ndam ki nga xamante ne moom mooy Yaya Jammeh bu Gambia Police Force turi décision yi refal yi ak woonin yi nga xamante ne moom la leket am jërë ngeen jëf li nga xamante ne mooy di Fatou Network la woon fii si Serekunda West Ministerium